ndax ñoom su ñëwaan ci kaaba gi di julli li ñu fay nekkee walis sarxolle tàcc ventilateur caxagun raw taj yooyu lañ fay nekkee woon mboroxe mboroxe yooyu rek lañ daan nekkee ci kaaba gi yàlla déet li jaaduwul fu demee néegi yàlla ñu daje foofu di fa def nooy moytoo sa noon kooku ëpp na nag wax dëgg yàlla wa maa kaana nekkutoon salaatuhum seeni julli ak seeni ñaan indal bayte fa néegu yàlla ba nekkuñ di ko jëfandikoo illa mukaan lul ay tàcc rek wa tasdiya afwan illa mukaan saraxolleeg walis wa tasdiya ak tàcc rek lañ fa nekkee woon tàcc saraxolleeg walis fii rega ji fii rek lañ fa nekkee woon loolu rek lañ fa nekkee woon ba yàlla jéppi leen nag yàlla na ay ci fas wuqu mos leen alazaaba duma ya bi ma kuntum ci saa ula nga xam ne nekkoon nañu takfuruuna di ko weddi dégg nga de euh, yéeféer yi waxoon nañ la keroog ne démb kenn ku ne da doon góorgóorlu ci xare badar ne maa ci gën a mën a financé waxoon nañ le amoon na fukki nit ak ñaar kenn ku ne ne armée bu bis bu set maa koy añal lu mu laaj giléem daañu ko def lu mu laaj sàngara daañu ko def te la wax ñu da ko def pour diine bu mu jëm kaw yàlla dikk di tontu ci loola nee na inna alladina ka gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañu yàlla waaye al ibratu bi umumi lafsi laa bi xusuusi sabab képp ku weddi yàlla koo mën di doon yunfiquuna ñuy dépassé ak a financé amwaaluhum seeni alal di tërali porosé tërali yoon dafi école dafi hôpital lu ne nga def ko lu tax nga di ko def li yasuddu pour nañ wàññi nit ñi an sabilillahi ci diine yàlla bu fi kenn jàngati alquran bu kenn fonkati jàkka yi bu ko kenn fonkati kaaba gi bu fi kenn fonkati mag ñi déggal li li yàlla yi teg nee na d'accord fa sa yunfiqunaha daañu dépassé alal jooju ñañu ko dépassé lekk ko summa takunu topp nekk alayhim ci ñaka dépassé woon war leen xasratan ak réccité mooy plan yi ñu bëggoon mu jàll ba léegi jàllagul kañ lañ commencé woon xeex diine ba léegi bu su diine gën gën a yokk ba léegi réccité rek plan bu ñu tëri rek jàll ci ba bu ñu tëri rek jàll ci seen seen maam ak seen maam mataar ba léegi tous lañ ci mën agul alayhi xasra te nag su ma yuux la buun topp des leen gañe fii gañe leen fële lañ bëgg duñ ko mës a am kon bu yeboo ñu teey rek ànd ak yara ci teggin kon nag képp koo xam ne moom yaa ngi finance pour xeex lislaam sab aayaangoo wala si ne gaa yi nga xam ne kafur weddi nañ ci ñoom yuxsarun des leen pang ñoom ñëpp ilaa jahannam jëme leen jahannam maa def lii nag li yamisa pour na ràññetle allahu yàlla ci yàlla sa xàmmee na waaye nit ñi la bëgg a wan ku nangu ak ku nanguwul xam nga bu ñëpp ne nangu nañ a ah am na ñoo xam ne dañuy yaakaar na ñëpp nangu nañ te fekk ñëpp nanguwuñu waaye dafa bëgg xam le naa ak ñu dul naa ñi nangu ak ñi nanguwut moom xam na ko waaye ñun ñoo ko xamagul waaw pour na le moom yàlla alxabisa yéeféer mooy ku gànt mina tay bi ci jul ti ku nangu waaye yaa pour na def ba tey moom yàlla alxabisa ñu bon ñi mooy yéeféer ñi dana def baadahu ñenn ña ala baadin ci kaw ñenn ña fa yar kumahu fa yar kumahu mu rankale leen dajal leen jëmeyaan ñoom ñëpp fa yàlla mu mujj leen def fi jahannama bi maanaa ëllëg yowmal qiyaama hmm. ñoom ñi nga xam dañoo weddi yàlla da leen di jël tegle leen ci biir sawara hmm. tegle leen ci biir sawara kom ni ñuy tegloo ay kees tabaarakallaahu wala ay saakuy ceeb dañu leen tegle noonu rek la leen teglee noonu la hmm. ulaaka wala gaay hum ñoom alxaasiru ñooy way perte yi xul waxal lillazina ñeel gaay nga xam ne kafaru weddi nañu ku demee ni ñoom abu sufyaan wala ñu fi wutu ñoom abu jahlin ne leen in yantahu ndegam daytalu nañu bàyyi seen bokkaale yàlla gii mooy ñiy financé pour xeex diine suñu daytaloo rëccu lañ doon def financé pour xeex diine saa borom nañu far na def na baal lahum ñeel leen maa xa salaf la ñu ci jëf ñaaw yëpp dinaa ko mujj soppi jëf yu rafet waaye nag way yaaw du ndegam delluwaat nañu pour xeex diine man it maa nga fa ma nekkoon man yàlla di fa xad madat jàlloon na sunnatul awwalin doxalinu mag ñu njëkk ña fi doon xeex diine fa ma jaaroon ñoom ak la ma fi jaare woon ak ñoom loolee ba léegi mi ngi fi ñoom nag bu fekkee nekk nañ ay nandite ah baax na bu fekkee nekkuñu ay nandite ba tey baax na dana leer yenent bi yàlla ne wa qaatiluhum xeexal ak ñoom xeexal ak ñu dul jullit xatta laa takuna dem ba dootuñu fekkati fitnatun ak bokkaale yàlla ci kaw suuf xeexal ak ñoom ba bokkaale yàlla dootu amat ci kaw suuf wa na nekk ad diinu diini ji kulluhu lépp lillaahi di ñeel yàlla kese nga xam ne yàlla dong lañu fiy jaamu jaamu gu wér jaamu gu sell duñu boole yàlla ak leneen fa inintaaw bu ñu daytaloo nag yam génn ci caaxaan yi ñu nekkoon ñëw ci dëgg ah fa inna allaha naka yàlla basirun aji gis la bi maa yaamaluun ci li ñuy jëfandikoo lépp dana ko xam waaye wayn tawallaw su ngeen dummóoyoo nag bañ a gëm defe neneen waxe neneen faala mu yëg leen anna allaha naka yàlla mawlaakum moo leen méngoo yéen jullit ñi niama amul moroom al mawla aji méngoo jooju di yàlla wa niama amul moroom an nasiru aji dimbale jooju te mooy yàlla mi la dimbale kooku amul moroom tagg na foofu boppam de kenn du moom xam nga xare bi gañe woon nañu ko ba ñu ko ganee gañee la indi woon coow li mooy nan la ñuy séddalee la fa jëlee la fa jële nañ koy séddalee moo indi coow ñii naan ñun ñoo demoon ak ñii war a ëppaleeg ñii naan ñii xeexoon ak ñii xeexuñoo coow li la kur yàlla nekk rek bàyyi leen loolu loolu moom hmm? Hmm? dégg nga bàyyi leen loolu waalamu xam leen annama lépp loo xam ne màng ngeen ko jële ko ci yéeféer yi ca xare ba min shay'in ci lëf lu mën di doon lu néew la lu bëri la lu suufe la lu màgg la ak lu mën di doon dama ne fa anna lillaahi yàlla moo moom ku mu suxu juróomeelu xaaj ba suñu ko xaajee juróomi xaaj juróomeel ba yàllaa ko moom yàlla nag lekkul naanul waaye dafa am fu mu koy def lu wax nañ ko jox ñii kon daanaka nañuy séddalee mànga jàngoo ko ci rifiq yi ba sonn wali rasul ak yeneen taam ñoo moom juróomeel ba wali zil qurba ak jege ñaale yi mooy jege ñaale yeneen yi nga xam ne ñoom du ñu lekk sarax lekk asaka ndax yooyu yëpp ci nit ci li bi nit ñi lañu du ñu lekk yooyu da nga ko baax ñooñu lañ koy jox wala yataama ak jirim yi nga xam ne seen bàyyi dañu dee ci xare ya amatuñ benn wéeruwaay juróomeel boobu nañ leen ci compal ndax ñoom lañ déparé wal masaakiin ak miskiin yi moo ñi nga xam ne dañu néew doole mënuñ seen bopp lool tabaarakallaahu juróomeelu xaaj boobu nañ ci yëkkati jox leen suñ ci aajoowee wabni sabiil ak doomi yoon yi mooy tukkikat yi kuy tukki itam ñëw ba ci dëkk bi amatul paas bu ko jàllale alal jooju nekk fi di juróomeel bi nañ ko yëkkati comp ci jox ko mu paas ba dégg nga loolu waaw kay sama borom ne nii ngeen kay séddalee in kuntum ndegam nekk ngeen su ko defee ñeenti xaaj yi nag ñu demoon ca xare ya lañ koy jox foofu nag kenn ku ne ak gënoon góor loo ku gënoon nangam nangam yooyu cër yi day foofu foofa itam jàngoon nga loola ne di daal ngeen koy doxalee in kuntum ndegam nekk ngeen amantum di gëm billaahi bu fekkee nangul ngeen yàlla daal nii ma séddalee mbir mi bàyyi leen ko nii amul coow dégg nga wamaa ak la nga xam ne ma la nga xam ne anzalna wàcce nañu ko ala abdina ak la nga xam ne wàccee nañu ko ala abdina ci sunu jaam bi idaafa bi kat idaa tasrif dong la abdina naa boobu daafale gi mu daafale boppam yénanti bi di jaamam boobu kooku da cee jublu màggal yénanti bi ak teddal teddal ko rek nga xam ne wàccee dañ ko ci seen yénanti bi suñu jaam bi di sallallahu alayhi wa sallam yowmal furqaan badar ci turam daf ci bokk yowmal furqaan ndax ci la dëgg ak caaxaan tàqali ko ñii nekk ci dëgg xam ne ñoo nekk ci ñi nekk caaxaan moom tabarakallah bisu tàqale dëgg ak caaxaan mm-hmm. di bisu badar mm-hmm. la nga xam ne yàlla wàcc ne ko ci ay malaaka ki kiimaan mm-hmm. yawmal taqa mooy bis ba nga xamee ne dajee na ca aljamaani ñaari coalition yi coalition bi yàlla ak bu iblis wallaahu yàlla xadiirun ku mën la ala kulli seen ci lu ne mooy dimbali ñu néew doole ci kaw ñu am doole fàttaliku leen idaantum ba nga xamee ne yéen jullit ñi bil udwati yéen a ngi ca xurwa dégg ko baax adduniyaa bay aji jege madinatul munawwara ba ñuy départ ñoom madina lañ gënoon a jege waxum ñoom ña ngeen war a affronté bil udwati ña ngi ca xurwa al quswa dégg nga de euh, bay aji sori madinatul munawwara dégg nga ko baax bayaay ju sori màkk kon Anfaan bayaay ju sori màkk ndax ñoom sori nañ màkk di ñëw Abu Sufyaan yéen ak yéen a gën a jege Medina di ñëw Abu Jahlin ñoo nekk ñu sori màkk wa hum bil ulwatil xuswa mooy ñoom Abu Jahlin te warak bu mbir moom gawar ga mooy Abu Sufyaan ak njëgg ma mu yoroon asfala moo gën a suufee minkum ci yéen ma nga nekk moom it ca boori tàkk géej gi moom boori géej gi la jege ne woon walaw tawaatum bu ngeen joxante woon rendez-vous yéen ñii jullit ñi ak yéeféer yi laxtalaftum wuute koon ngeen rendez ba film yaa di ci rendez-vous ba nee bu fekkoon xeex bi da ngeen woon na bi sàngam la ñuy xeex du ngeen mës dem xam nga xeex bi dañuy jekki-jekki rek ñu ne ayca nañ dal ci kawam amul waajaay walakin allah waaye yàlla moo leen dajale te joxewul dele lu tax li yaqdiya pour na àtte allahu yàlla amra mbir moo xam ne kaana nekk na mbir ma mafuula nekk lu ñu def ba pare yàlla al mu bëgg na alak yéeféer na yonent bi ay ca tontu li yahlika pour na alak faagaagal man halaka képp kuy al ko am baynatin mooy kuy dee na lu ko wér na ba mu gisee dëgg ba mu door di dee mooy yéeféri wa yaxyaa dana dund dana ci gëmee man xay xayya képp kuy dund mooy ku ci ne gëme sa gëm yàlla di ci yokkoo itam am bayinatin dana ci yokkoo ci preuve yu leer naññ ndax comme xare am na xam na ñi nekk ci dëgg ak ñi nekkul ci dëgg ñi nekkoon ci dëgg gën a góorgóorlu xam ne ñoom fi jàpp foofu la ñi nekkutoon ci dëgg xam ne dëgg leen rey rek mu jeex ndax Abu Sufyaan Abu Jahlin bul fàtte ne démb ba ñuy taxaw am na ñaan gum ñaanoon de kon mbir mi leer na te ma nga ko ñaane woon ca kaaba ga ñëpp dégg way na laa naka yàlla la samin aji dégg la alimun aji xam la li di wax lépp lay lijjanti ne fàttalikul is yurika jamono balay wan allahu yàlla hum yéeféer yi manaamika pour nga xam damir fu muy dellu mu bañ la indil jafe-jafe dégg wax bu yàlla ba mu lay wan yéeféer yi ci sa biir biiri nelaw waxoon naa la fi gént goo xam ne géntoon na ko mu wan la yi xalilan ñu nekk ñu tuuti lool ci ni leen gisee ci gént gi nga wax ko saaba yi ñoom ñëpp ñu kontaan yàlla nag nee na su ma la wanoon ci nelaw yéeféer yi ñu nekk ñu bari nga nettali ko saaba yi ñoom ñëpp daañu ragal te loolu laay bañ araaka su la wanoon moom yàlla hum yéeféer yi ci nelaw kasiran ñu nekk lu bëree bëri la fasiltum ngeen ese euh. tuug mu way dégg de waaw ah, doxul moom dégg nga la fasiltum kon ngeen yo njax esek te boobaa ragal wala tanazaatum te daa ngeen jiw yoo xëccoo fil amri ñi naan danañ xeexeeg ñi naan duñ xeexeeg nangam nangam waaye walakin allaha waaye yàlla sallama musal na leen ci xëccoo boobu ak échec boobu ko ragal googu tax mu doxalee nii mu doxalee wala ñu nekk ñu tuuti fekk ñu bari lañu innahu na kom yàlla alimun aji xam la bi zaati sudur li ci biir dënn yi dara ump ko ci xam gi ma ko xam tabaarakallaahu moo tax ma wax ak yéen noonu ma ngoog nee na bañ leen di wan yéen jullit yi yéeféer yi isil taxaytum jamono ba ngeen di dajeek ñoom xalilan ñu nekk ñu tuutee tuutee tuuti maanaa foofu fàttalikul ngay jël wa fàttalikul is yurikumu jamono bay wan yéeféer yi déglul bu baax jamono ba ñuy wan yéeféer yi hum jullit ñi dégg li taxaytum jamono ba ngeen di dajeek ñoom xalilan ñu nekk ñu tuutee tuut ñu dem dégg nga eh, walla da nga koy delloo jamono ba leen di wan yéeféer yi idil taxaytum jamono ba ngeen di dajeek ñoom yéen jullit ñi jamono bañ leen di wan yéeféer yi jamono ba ngeen di dajeeg ñoom xalilan ñoom yéeféer yi ñu nekk lu tuuti tuuti fii ayunikum dégg nga ko ngeen naan téeméer la ñoo juróom-ñaar fukk fekk mën nañ junni wa yuqallilukum yéen itam mu tuuti leen lool ba ngeen tuuti yéen jullit ñi fii ayunihim ci bëti yéeféer yi yéeféer gis leen xeeb lool lool naan ñii da tey bay des lii lañu wax maa def loolu def ci seen bët yéeféer yi tuuti ma def ci bët yéeféer yi yéen it ngeen tuuti xam nga ñemente day am tampongo ne day gaaw li yàq di yàq pour na atte allahu yàlla am ra mbir moo xam ne kaana nekk na mafuula di lu pare way laay ci yàlla itam leef di delloo turjaaw leef di delloo al umuru mbir yëpp dossier yëpp ci kanamam lañ koy yóbbu yaa ayyuha alladina amanu ñun lay waxanteeg ida laqiitum ndegem daje ngeen nag fiyaatan mbooloo moo xam ne mu weddi yàlla lañu gëmuñ yàlla muñ pas-pas fas bu tuut gën leen seen bopp bu leen joxe ginnaaw mukk sax leen te gëm li ngeen ne xam ne yéen ay gëne waskuru fàttaliku leen allah yàlla kasiran lu bëree bëri tabaarakallaahu di ko ñaan gañe ak ndimbal ci kaw ñi ngeen ko seqal laallakum ndax la yéen tuflixu na ngeen mën a kiilu waati yoo topp leen allah yàlla wa rasulahu ak ndawam lii lim leen sant def leen ko lim leen tere bàyyi leen ko xëccoo nag amul njariñ dem ba war a xeexi war a jàmmaarloo ngeen di wuutee ka juyoo fii laay taxaw duma taxaw fii nii laay sol du ma sollee nii ki euh, kalaw kalaw yooyu matu ko wala tanaaza'u bu leen xëccoo bu leen wuute boobaaw kat fa tafsalu da ngeen mujj yoon jax esek sa ba dem riihukum seen pouvoir mooy kattan li ngeen amoon pour mën a dékku gaa yi dootu leen ko amati masal moomu gaa yi di joxe toujours da ngay xool ci tilaawa yi di ko gis ci tabaarakallaahu góor gi ba bëgg a faatu jël banti yi bant yi boole ko jox doom yi mu nuñ ko damm mu jox kenn ku ne benn bant ñu dammandoo ko mooy loolu soo defee benn bolo rek kenn du leen mënal tus waaye bu ngeen tàqale ko kenn ku ne booyal booyal saalu bopp ku ñëw maasale wa tazhaba riihukum wasbiru muñ leen inna allaha naka yàlla maa saabiriin ndimbalam ànd naag muñkat yi dégg de mu waxaat ba tey ne xare bi itam reewantalu amoon na ci fuuy fuulu amoon na ci gis sa bopp ku demee ni Abu Sufyaan ba mu waxee Abu Jahl ne ko bën ngaa delsi mu ne ko du delsi ndax xas na takk ba pare te góor ñëpp yëg na takk na kon lu mën di xew moom dinaa dem ba badar naan sàngara si ñu rendil ñu giréem yi xale yi jigéen ñu tëgg fecc wër ñu ñu bégee door di wàññeeku ba ñëpp xam ne rasulullahi moo rikile waaye du man maa rikile sama borom dañuy jàngal ne reewantu ak fuuyantulu nag amul ku mënul gaañ wala takunu bu leen nekk que ladi mel ni gaa yi nga xam ne xaraju génnoon nañu min diyaarihim ci seen kër ya bataran ngir reewantaloo ko fuuy loo ko ñinkali ko wari a annaas ak njistal wan nit ñi ne armu bii la ñu yor doole jii la ñu yor te lañ ko doon defee ko ngir lu lool rek waaye su dinaag ñuy wàññi nit ñi an sabilillah ci diine yàlla ji wallahu yàlla muxiitu naa ji peeg la bi maa yaamalu lépp dara riiru ci xam nga ñoom ba ñuy dem iblis dafa ñëw di leen encouragé ñoom yéeféer yi waaw di leen soññ naan jullit ñi kay yore leen nag dikkee leen comme melokaanu Suraqatu bnu Malik la leen dikkee naan yéen leen mën ka leen ci seen kaw ñoom koy dañoo dëgër bopp waaye dañoo xam ne lépp dëgg la nangam nangam yéen ni ma leen xamee ni ngeen yore arme ñoom xam naa ne dañoo xamul fu ñuy taxaw xamuñ ba nangam ndeke Iblis xam nga xamee ne malaayka yi keroog ba xare bi tàkkee ba tàkk mu gis malaayka yi di jaaba jonge ci biir xare bi moom boobu la dëngalu ndaw man lii du ma ko fekkee man xàmmee naa gaa yi de lu ma mus dal ñoom ma ko tey ñoom na xàmmeewuñ leen man daw naa loolu la alxuraan di nettali fàttalikul is zayyana jamono bay rafetal lahum ñeel leen ak seytaanu seytaan mooy iblis di leen rafetal amaalum di leen encouragé di leen pousse di leen soññ pour ñu bañ découragé pour dajeeg jullit wa wax na moom iblis ba mu demee ba nga xamee ne gis na mbooloo ma euh, waxaale moom ibi wax na iblis moom laa xaaliba moo wax yéeféer di leen déet kenn di gañe lëkkum di leen ñeen al yow ma tey may naas tey kiyaal ma kenn kenn ku leen a dékku ci kaw suuf gaa yi naka ah mu ne wa indi man iblis jaaru maa ji garanti lëkkum ñee leen maa téye seen cumekaay lu ngeen bëgg yàlla na jàmm ba ñu demee ba xare bi tàng ba mu gis malaayika nag te xàmmee ne leen xam na ñi moom ku dóor dañ lay mën a kaalawoo ndax da nga mokk mokk goo xam ne nooy nooy goo xam ne boobu la rikki la daw fala ma taraati ba demee ba jàkkaarloo daje alfi ataani ñaari mbooloo yi rek naka sax iblis wàññiku na ala aqibihi ci tësënam di daw wa mu wax ñam doon wax ne maa tey seen ci mekaane leen inni man mii bari un ko doñ ba set wecc wecc wecc wecc laa min kum naa ah, maag yéen daal xamatuma leen bu leen ma xamate jeex na gars yi ne ah, góor gi lay wax ni mu ne hey dofu leen indi man mii ara xàmmee naa gis naa mala taraw naa gis naa ne affaire bi dafa am rax de cere ji dafa am rax de waaw def leen ndànk de man daal xàmmee naa fi ñoo xam ne xam naa du ñuy nit te yéen gisu leen leen ak yeew bi laa bu man bu ko yi jàppee dana xam ne caaxaan baaxul de indi man mii nag kaafu ragal naa trop allah yàlla mu boole ma ci ñu may duma bu mu àndee ci xeex bi su ma demee du mucc su may dem di dee <laughs> comme kilifa gee def noonu de kon masama la ñuy ñem doon ñem doon puus wallahu yàlla sadil iqaabi ku tar ay duma la xanaa ñàkk ci jublu fàttalikul il yaqulu bay wax al munafiquun naafeq yi walladina ak yi nga xam ne fii qulubihim nekk na ci seen xol ya maradun feebar feebar bi nag feebarug weddi yàlla feebarug nifaaq feebarug feebalu feebalu ngëm doxalu imaan bi leen dugg mooy maradun naafeq yi ci seen bopp nga xam ne seen pas-pas dëgërul ñoom ñoo wax ne xarra nax na haawulaay jullit ñi nax na leen diinahum diinuhum ñoom daal seen diine ji la gëm ba naxu ci ba yaakaar ne ku taxaw seen kanam mën nañu la daaneel waaye billaay seen gisaane nax na leen wa man yatawakkal képp ko sukkandiku yàlla di tontu naa fekk yi ne leen jullit ñi nag yàlla lañ dénk seen ci mekkaay te yàlla boo ko dénkee su ci mekkaay gañe rek wa man yatawakkal képp ko sukkandiku alallaahi ci yàlla dëgërlu jox sa lépp yàlla gañe ak koo mën di affronté fa inna allaha naka yàlla azizun aji not ci nguuram la hakimun aji teg la mbir fa mu yàlla te xam ne yéene yelloo gañe kon yéeney gañe walaw tara boo gisoon yow sallallahu alayhi wa sallam yatawaffaa jamono bay faat alladina gaa yi nga xam ne kafaru wedd nañ jamono ba leen di faat almalaykatu malaayka yi jamono bañ leen di rey yadribuuna ña ngay dóor wujuhahum seen kanam yi wa atbaarahum ak seen ginnaaw ya noonu lañ leen doon dóore jël mbol rek bàyyi mu dem nga su ko defee yàlla na wax na leen zuuqu mos leen ci làmmiñu malaayka yi adaabal xariq mbugal ma nga xam ne mooy mbugal muy lakki ëllëg yawmal qiyaama nee ko boo gisoon lii da gis mbir mu garaaw de zalika li waral duma yooyu mooy bi maa xaddamat si la dawal na ko ay diikum seen ay loxo wa anna allaha naka yàlla laysa bi zallaamin déet muy borom ak tooñ lil abidi amul ak tooñ bay tooñ kenn waxoon nañ la foofu na mu demee woon siixatul mubalaka bi taxawu fi de day dàqal yàlla ak tooñ ci bépp côté nag nekk bu ko fi leen nekkul tooñaakoon su nekkee tooñaakoon nekkul tooñaakoon kon koy léeg-léeg mu tooñ ke daa bi aali firawna nee na ñii daal fa may jaar ak ñoom dafa mel ni fa ma daan jaar ak waa kër na rek bañ weddi waan fa ma jaar ñoom fa laay jaar ñii rek wala si nag gaa yi nga xam ne min qablihim ñoo leen fi jiitu woon bañ weddee it fa ma jaar ñoom rek laa jaar kafaru weddi nañu bi ayatillah leen ay duma allahu yàlla bi zunubim seen bàkkaar yooyu inna allaha naka yàlla xawiyun ajaam kàttan laa ji dëgër la waaye ah, ah, sa dilee qaab kutar ay duma la zalika li waral duma googu ñu duma ñu weddi yàlla yi bi anna naka yàlla lam yakku ma ngoog nuun gi su la neexee nga xasaf de su la neexee nga bàyyi fi ndax nekkul lu war ndax gis nga fuñ ko xasafee ci alquran gis fuñ ko xasafewul fii gis nga ko fi wala maa ko bàq yaa gis nga ko lam yakuni lazina kafaru fa xasafuñ ko donte nag wa in tala alif walaam faksur wa kulli yakumul kalaam waaw kay su ko nag mar day taali fuñ daje dagan na nga wàcce ko di soppi ko kasra moo indi lam yakuni tax toppoo jasam nga ndax liif ak laam songu ci kanam waaw kay waaye fii nag moom da nga def càppit dagg bu la neexee nga dagg bu la neexee nga bàyyi wa min muda wa min mudaariin la kaane mun jazim boobaa toxsabu nuunu wa xasbu malfusim waaw boo xam ne dafa bàyyi ko ci kaana su la neexee bu fekkee ne dafa jazam bu la neexee nga dagg nuun gi xasaf ko xasaf goo xam ne nag nekkul xasaf goo war bu la neexee nga bàyyi léegi loolu lam yakku nekkul moom yàlla mu xayiran di aji soppi niamatan xéewal goo xam ne anamaha xéewale woon na ko ala xawmin ci aw nit yàlla du jox aw aw xéewal mukk di jekki-jekki dafa jëlee xéewal ga mukk xalaatu ko yu yugayiru mbate bu nit ñi dañoo soppi soppiku soppi maa bi am fu la nekkoon fa ñoom ci nangul yàlla ñu soppi ko ak weddi ak mooy yàlla yàlla soppi mbiram te yaay mbiram kon kay xéewal lii moom ne la wóor na ragal yàlla ak topp yàllaa koy indi boo melee ne nen rek mu soppi ko kon li ñu dal di ci yàlla ci ñun ñii la jikko yi ñu jikkowoo moo tax la fi nekkoon yépp di wonni ko benn par benn benn par benn waaw nii nu mel dong la nag yàlla ne su ngeen di rek mu soppi dégg de soppi ko rek mu soppi waa na laax naka yàlla samiyoon aji dégg la alimun aji xam la mbir yi nee na ka daabi dafa mel niki waa kër firawna fa ma daan jaar ak ñoom rek laa jaar ak wa walladina gaa yi nga xam ne min qablihim ñoo leen fi jiitu woon kazzabu weddi woon nañu bi ayaati rabbim seen aayay boroom waaye fa ahlaknaahum alak nañ leen bi zunubihim ci seen sababu bàkkaar yooya ñu daan def fa laa jaar ñoom duma leen wa aghraqna labal nanu aala na waa kër firawna ak ña ko toppoon mucc ñu ba ma leen jàppee nee wa kullun képp kenn ci xeet yi weddi yii kaanu nekkoon nañu zalimin di way tooñ seen bopp tooñ ga tooñ seen bopp nag moo tax lii dal leen dal leen moo waxaat ko nee inna charra dawaabi naka daaba bi gën a yées ci daaba yi indallaahi fa yàlla alladina mooy ñi nga xam ne kafaru nit ki gën a ci nit ñi daal daaba bi gën a yées ci nit ñi mooy ki nga xam ne dafa weddi boroomam waaye ki gën ci daaba yi itam mooy ki nangul boroomam ulaayika xayrul bari ne dina amanu waa amilu saali ulaayikum xayrul bariya ma ngo foofu kon gën ni mu amee sarul bariya noonu la xayrul bariya amee te mooy ñi weddi rek fahum ñoom laa yuminuun allay na mooy gaa yi nga xam ne ahatta kóllërante woon nga ak minhum ca ñoom mooy bani xuraysata ak ñu mel ni ki ñoom dangaa waxante woon ak ñoom loo mën di seq ak yéeféer yi dangeen may jàppale ñoom nag ñu fecc kóllëre googu dem jàppale ji yéeféer yi summa yanquduuna topp fecc nañu ahdahum seen kóllëre ga fii kulli maratin ci bépp yoon buñ ko kóllëre rek ñu duñ sàmmante kóllëre gi def la leen neex waxum ñoom laa yattaquun duñu moytandiku wuruj mukk fuñ toll daal ci wor rek lañuy ñuy dëkk comme nag ñoo la war fa imma tasqafannahum foo leen mën di fekk ci adduna bi fil xar bi ci geer yi foo leen mën di fekk ci attaquement ci guerre bu mën di doon fa charrit séparel teqaleel biim ci ñoom man xalfahum ñee ñëw ci seen ginnaaw li mu bëgg a wax ñii nga xam ne fasante wana nga ak ñoom kóllëre ñu fecc kóllëre ga foo dajee ak ñoom ci na nanu dee ngir ñeneen ñi nga fasante kóllëre te feccee guñ ko buñ ko buñ ko fecc fa sarrit bihim man xalfum loolu lay junju léeg nga duma nit ci daara ji duma ya nga koy duma morom nga ko duma gis nga sàcc na def na njuumte mokkalul ngay ah,